fekk si fi euh, saltige Mamadou Mbengue euh, ñu war a waxtaan nag ak moom ci lu yaatu euh, ci cosaanal dëkk bi waaye surtout ci wàllum suuf li lay taal waxtaan wi nag mooy li ñu dégg jamono yële ni dagg nañu ca engare des pèlerins ay terrain yoo xam ni suufa si Yoff la loola nag ñu war ca sukkandiku waxtaanee démba lébu yi ni ñu toogee woon ci ndakaaru ba ni ñu koy waxee ku ñëw ñu xajal la nga dëkk saltige ñu ngi lay nuyu di la gërëm gërëm lool ci disponibilité bi ak itam temps bi nga ñu may ngir waxtaan ak ñun ci dem ak tey dalal ak jàmm. soxna Fatou ñu ngi lay fay ci émission bi nga ñu dalal muy émission démb ak tey bu réew mi FM di nuyu sa téléspectateur yëpp nuyu waa Sénégal nuyu waa àdduna waaw di dalal fii si yoof kër góor gi El Hadji Bayda Mbeng mooy suñu waajur ñu doon na doom ci wàllu coutume toogal ko fii si Yoff ak communauté Lébu. justement ñu dooree ak yow nga présenté wu wax ñu aussi lan mooy place su saltige ci communauté euh, bi nga xam ne fi ngeen bokk. waa communauté Lébu moom organisation la boo xam ne bu date ay siècle la muy organisation boo am solo bien avant république française ah, ñu defoon benn organisation joxoon seen baat bu ñuy wax laman booba c'était en 1432 booba ñu ngi ci boobu mboxeex fële ci stade amitié jëm Patte d'Oie jëm Grand Médine waaye bi ñu demee ba ba ba jamono do ñu ne daal organisation il faut ñu éclater ko dénk ko ay ay ay ay ay mooy ay xeet ci biir communauté bi bu dee saldige ñun ay dindiir lañ ñooy doon na saldige fi ak les sumba bu dee jaraaf waneer ñoo koy doon na ak xonq bopp yi bu dee ndey ji réew bee ñi ñoo koy doon na ak ku nekk nag ñu am luñ la dénk saltige nag comme ni ngeen ko waxee <clears throat> mooy ah ki nga xam ne moo yenu wàllu baatin ak cosaan si lébu gi te tamit dina defaale social ak activité yoo xam ne luy aar dëkk bi lay doon saltige nag ah muy koo xam ne vraiment ku wax lébu wax jinne wax rab te ñoo ñooy àndandoo mbindeefu yàlla lañ comme ni malaaka nekk mbindeef doomu aadama nekk mbindeef ah, ku nekk am mission boo xam ne moom la la yàlla sant nga di ko dox ci kaw suuf waaw ah, jinne nag moom dafa yàlla ka may xam-xam bu yaatu mooy mën na la wax mën na la préditer man na la lu ne daal mën na la ko jox ci information ak lu mën a xew ci àdduna nit nag yàlla dénk tamit mission ci kaw suuf mu am partenariat avec jinne yi jinne moo tax saltige cëram dafa puissant des fois da ngay am mbir yoo xam ne dafa lay dikkal jéego si ñoom waaw si si lépp wàllu réew mi wàllu communauté bi wàllu wàllu wàllu géej gi waa lu nekk daal dañ la siy dikkal di la si wax ay information yoo xam ne yàlla leen ko defal parce que jinne tey moom li ñu xa li ñu xam si moom mooy moom lu dikkagul rek mën na la ko yow nag doomu aadama boo defee sa pexe def sa xaar fa xuufa def sa yi nga war a def yëpp ba am xam na moom partenariat moom dina man di la wax li ñëwagul yow tamit li nga weesu nga xam xam li nga weesu lan la nga xam fooy teg sa tàgg loolu mooy rolu saldige bu ñu tànn tamit si communauté bi koo xam ne da nga war a am cërëb moom tamit dañ koy consulter moom mu dugg a seet ndax ki ñu war a fal wala ñu jox ko cërëb ndax dina dig ji communauté bi dina ji réew bu fekkee seet nañ ko du ko jig te am na beneen frère boo xam ne mooy koy gën a gën a kii gën a jig ñu ñu ñu jël cër boobu jox ko yooyu yëpp dafay am si biir commune ak ñaan géej gi am xéewal am sécurité Sénégal noonu àdduna sax noonu des fois moom dara dikkal loo xam ne problème bu am Chine la waaw nga de doo si mën a déplacé wu dem. mais yàlla fii ci Yoff ñu la ciy wax. ah kay jiit ne xam nga moom diggante xeex a xiif bi mën na dem Amérique ñoom. Ah. puissance boobu la am. moom it ñoom duñu dëkkuñu fii parce que suma papa daf ñu wax ne doom man jóguma leen yéen rek parce que yàlla moo ko mayoon mu nekk kilifa goo xam ne kilifa gu yàlla mayoon la daf ñu daan wax ne doom la la réincarnation mooy juddu judduwaat mooy juddu naa judduwaat judduwaat juddu naa juróom-ñaari yoon ci kaw suuf wallaahi dëkk sàngam buur ba fa newoon man la dëkk sàngam buur ba sama juróom-ñaareelu juddu laa juddoo Sénégal fii pour noppal noppaliku dëkk yi ma juddu yëpp ay buur laa foon dama daan jiite ay trône di di di am armée am lépp mais actuellement sama septième juddu mooy damay juddu ci biir Sénégal noppaliku jël témoin parce que sama njaboot ba pare di ko superviser moom loolu la ko yàlla mayoon moo tax daal lu lu lu lu yéeme la mbiram dafa yéeme wàllu tarixa tijaan li ñu jàpp Cap Vert nii comme ni ñu dénk lébu gi nii ñuy wër ak grand sëriñ luñ sa wax duñ ko dindi luñ leen wax ñu dante ñu def ko moom loolu la ko yàlla defal ci tarixa tijaan même tarixa tijaan am na sama xarit boo xam ne am na si cër mooy président national bu Koskas sama goro la mooy denc sunu soor dafa am bés ñoo dëkkandoo fii ma wax sama frère bi sama taawu yaay maa ngi dem bi ma jëlee werd si sëñ Abdoul Aziz Al Amin yàlla na yàlla yokk leer mu jox ñu werd da ma commencé parti pratiquer a tijaan mais ma toog tuuti ma nekk maa ngi dem àndee maam Ousmane nee na ñu ànd ñu ànd un mois deux mois moom mu xëy rek ñëw ne ma man dama jaaxle biig sa papa daf ñu jël maax yow yóbbu ñu géej yeb ñu si moto géej yooyu dawal ñu si kaw géej gi wëral ñu fu ne si géej gi wàccee ñu ah ne suñu ànd bi de mag ñi mag ñi dugg nañ si. ñuy dox ba mu yàgg mu ne ma daal dafa am kilifa gu baax ku yàlla may wàllu yu la yàlla may naka xam-xamu jinne waaye naka xam-xamu alxuraan mais daal dafa ma wax ne li ma bëgg si tarixa bi boo demul kër bay da doo ko am. mooy fii waaw mhm. boo fa demul doo ko am. ñuy ànd ñu ànd mu wax ma ko ñu commencé diggal ko ànd ñu lu ñu seex bu ñu dem suñu cosaan sa dañ ko daan oomu dugg si. jamonoy dox dox dox ba sëñ Abdoul Aziz Al Amin woote ne dafa bëgg a rénover Koskas. mais xale yi lañ koy dénk ma toog ñuy topp loolu sëriñ bi ne nañ ko may mu ngi koy seet mu ngi siy wax a mag ñi si biir suuf ba mu yàgg man ma am si benn gent buñ ma si woon ma dem këram comme foofu lañ daan xambiso sàmben fii taaxu maam El Hadj Malick maamam moo dalaloon maam El Hadj fii kon cër bi ka tiwaawoon jot jox du hasard mhm. ñu dem waxtaan ma ne ko biig di am na tettal buñ ma woon sikk cëru koskaas bi sëñ Abdou war a joxe waaye Souleymane Pay bili bili Pay bu HLM Patte d'Oie la moom it mbot la bokk si ñiy falu jaraaf mbot la ma ne ko moom day la mag ñi bëggoon a jox ci rëbb si lañ ma woon waaye dañ ne buñ ko ko joxee dafay bari coow yow lañuy ñuy choisir ma ne loolu lañ ma woon mu ne ma ah ma ne ko waaw wan nañ ma loolu mais nañ continuer jamonoy dox di dox ba sëñ Abdou ma xëy fii bés sama daan def chaque weer ma dem ziar wala chaque 15 jours ma dem Tiwaawoon ziar ji ko ba ñu waxtaan ba pare mu ne ma ana maam Ousmane ma ne ko nga bàyyi Yoff mu ne ma boo demee bu ëllëgee na ma fekk Lamine géey si këram gi ne Lamine Gueye ma ñëw seeti ko ñu waxtaan ma am sëriñ ma ne mu ngi lay nuyu mais nee na suba nga fekk ko Lamine Gueye mu dem Lamine Gueye waxtaan ak sëriñ bi sëriñ bi ne ko Koskas mag ñi yow lañ ci xalaat wallaahi. da ko gisee woon. waaw koskaas mag ñi yow lañ ci xalaat. demal nga xool ndax yow di nga ko mën a doxal wala de mu nekk ko non aw ma lu ma siy xalaat yow yaay suñu kilifa loo ñu si denk rek dañ koy doxal. yàlla ni mu maandu. mu jógee Lamine Gueye di ñibbise booba suñu magasin yi boutique nga fi man ma génn ci wasifa ba pare génn di jënd si boutique bi dama jënd si boutique bi ba albatu ku jàkkaarloo bayaal bi rek mu wàcc taxi. ma xaag mu ñëw mu ne ma sii man de dama jaaxle sëñ Abdou nee ne koskaas man la koy dénk ma ne ah man de loolu bettum kon sama liñ ma wonoon. dara dañ si. Hmm. kon lu ne dina si dégg même tarixa tijaan suma papa daf si amoon cër bu mag li muy ne saltige yëpp wàllu la am xam-xamu alxuraan am xam-xamu cosaan. kon affaire saltige lu bari bari bari bari bari buñ leen léblu lébu yi déglu woon waxuma nag léegi saltige yi bari na. ku nekk ngi falu. ku nekk ngi ut yu xonq même yof fii sax am na fi mais daal li ñu jàpp ñun mooy sunu kër gi bu dee bu dee bu dee bu dee kii bu dee bu dee électrification ku ne am am am poto ak sa compteur kër gi mooy dynamo moo leen mooy alimenté yox mooy alimenté la communauté lépp parce que démb grand sëriñ fii la toog di seet si sama yaay ñu waxtaan lu bari mu ne bu leen mën na bëti dara mu ne ma bari na lu ngeen lu ngeen xam da ngeen ko war a wax parce que loolu seen papa moo leen ko moo moo yàlla te defaloon si Sénégal voilà. voilà kon saltige du lu ñuy lu ñuy lu ñuy bàyyi gannaaw waxuma nag da léegi dafa jaxasoo. Ah, dafa jaxasoo ñoo tax ñun lu bare bare bare bare dañ si dañ si maandu. Hmm, waaw lañ sa man sunu moyen bopp ñu def la sa des ñu maandu si. parce que boo waxee dañ lay jàppe charlatan wa ñi nga xam ne dañuy wax ni pour lekk xaalis te ñun sunu mission ëpp na loolu quoi. jërëjëf saltige présentation bi am na solo euh, am nañu euh, benn gis-gis bu leer ci taxawaayu saltige léegi nag ni ma ko junjee tey dañu bëgg a waxtaanee cosaanal yoof gi nga xam ne fi lañ ne tey euh, yoof ca ndorteel ga ana nu fi maam yi toogee woon ba ku ñëw ñu xajal la junj naa ko sànq li lay taayal waxtaane mooy coowal suuf lëmbe na Sénégal waaye yoof itam jot na ci wàllam ndax hangar de pèlerins ay bés ba li ñu génn yëpp ñu ngi dégg coowal ay parcelles yoo xam ne dagg nañ ko fa muy loo xam ne itam xëy na lebu yi am nañ ci benn gis-gis euh, ñu njort itam ne neexu leen ci loolu lañ bëgg a waaye euh, ñu dooree ci cosaanal yoof mhm. ak mag ñi ni nu fi toogee woon ba naan yoofu lebu yi waaw yoof day cosaanam dafa dafa yàgg da li ma la mën a wax sax mooy cosaanam si li li li samp république Sénégal mhm. cosaanu yoof parce que ñun nangu nañ si am Diène ancien maire Médina mu wax ne di di di frère si Adja Aram Diène ancien député mu ñëw benn dëju bàyyi jaraaf Issa Mbengue booba sama papa génn na àdduna mu wax ne Senghor bi mu nammee ñu taxawal senegal dañ doon tourner ci région yi mais bi muy dem ma ñi ci ëpp magi lébu yi la àndoon lim sama papa lim jaraaf lim moom mu nekkoon ci xale mhm. nee na li ko yéem mooy dem nañ région yu bari dugg poogu Casamance yooyu bi ñuy ñëw jël benn tali di daw nee na ñuy daw ay xël jékki-jékki rek ci àll bi benn gaynde génn dox seen diggante parce que nekk leen tenir embus embuscade nekk deg ci bi ñu jëmoon noonu dañ fa gas xat pax mu xóot pour seen oto man si dugg naan ndëgg sarax ndëgg sarax voilà léegi ñu daw rek jékki-jékki gaynde génn dox seen diggante ak ak pax nee na ñu taxaw ab diir gaynde gi tëdd sama papa wax leen kii sama àndandoo la am na lu ñu war a dal xam naa moom lay alerté ni nee na ñu wàcc bi ñu wàccee arrêté gaynde gi doxaat dugg si àll bi ne ñu wàcc mais bi ñu vérifié dañ leen bëggoon def ndëgg sër bi ñu paree ba contourné loolu di dem Senghor ne mënul ñàkk gi nga gaynde bi lii tax Senghor boole ko si mm. emblème Sénégal loolu si la waaw mu ne mënul ñàkk bés buy taxawal raaye Sénégal wala li ñuy bàkke Sénégal il faut mu tegal si gaynde ah, ndax gaynde bokk na ci li ko muccal ah kay loolu la suñu bàyyi waxuñu ko Ahmed Diène moo fi ñëw dëj wax ko waaw nettali ko mhm. te moom il était témoin moo doon ànd ak mag ñi nga xam ne ñun si ñuy samp république Sénégal jàppale woon Senghor magu lébu yi kilifa diine yi jàppale nañ ko sëñ Babacar Sy ànd ak sëñ Fallou ànd ak maam Babacar fi waaye lébu yi moom la jàppale nañ ko à cinquante pour cent lu bari ci parti socialiste bi mu porté woon sunu magu lébu yi ñoo ci defoon seen baadin ak seen cosaan ba pare jóg àndax ma moo taxoon mayoon na leen journée communauté lébu chaque année da daan ko la communauté lébu ñoom rekk ko amoon Sénégal recevoir communauté lébu mag ñi jóge yoof ñi jóge caaro ñi jóge anbel yaraax ñi jóge tëngéej ñi jóge barñi ñi jóge ba ba jandeer mu may leen journée boo xam ne si spécial communauté lébu ñu def ko en direct ci rajo Sénégal mag ñi jóg di wax mag dëkk bu ne mag jóg wax maa ngi cassette bi fi nga xam ne loolu Senghor xamoon na la communauté li muy peser moo tax cosaanam du ñàkk di réagir ci Sénégal Ablaye Wade bi muy daanu fii lañ toog am si benn tetal ñu wan ñu ne dafa def lu xar xuufa yu mag a mag dingal ko géeju mbaam wallaahi ñu di ko topp parce que ñun information bu ñu dikkal rek dinañ ko topp ñu di ko topp di ko topp di ko topp ba dajee Ibrahima Jàmme muy muy muy woon meeru Patte d'Oie premier mandat Khalifa ñu dajee Patte man may ñibbisi ñu dañu ma nekk ee eh, taxawal mu taxaw sama xarit ma nekk mais yéen yéen yéen a ngi bëgg Ablaye Wade daanu ba pare ngeen di nelaw bu ngeen bu ngeen xefee dina leen duma wala bu ngeen ko duma du ngeen du ngeen jariñoo ngóor mu ne ma mais taxawal yow yow loolu foo ko xamee ma ne ko non dañu ko dañu def suñu dikkal rek mu ne ma man soose laa maa ngi jóge suñu dëkk ba ak dem exactement li nga wax lañ wax sama maam lan moo siy pexe ma ne ka ah, bu ngeen defee sarax de man man man man man na toj mu ne ma duma la bàyyi danga ñëwal léegi ñu dem si Doudou Issa Niass waagu Ndiaye ñu dem Doudou Issa bëgg ma jël yóbbu ma si Ousmane Tanor ma ne ko ñett mu wax wax ma ne yéen waa parti social suñuy bàyyi leen defal lépp mais dañu dee ngeen bàyyi ñu aara defe ne defe ne am xamatuñu dara ah, ah. mu wax wax ma ne ko du ma def jël ma amuma indi ba fii wàcceem ne ma loolu bàyyi dinaa seet pexe waaye man tamit tooguma ñu toogaat sama mag infirmière Thierno Mbengue moo nekk poste de santé bu bu fii parcelle benn mag mu baax boo xam ne parcelle la dëkk di mag mu baax si mag ñiy ñaanal Sénégal mu dajee ma mu ne ko waaw man doom dama jaaxle lii ma gis Ablaye Wade def ko si géeju mbaaw gi bu ko mag ñi tojal du baax de pour Sénégal te sa papa si ñi ko daan tojal la ma ne nga wax kalal noonu nga wax sama bàyyi bàyyi na fi ndono yow kay xam nga ne paa bàyyi na fi ndono si paakeem bokk bu ñu jógee sax man nañ ko tojal ñu wax ko Lamine Diack moo ñu jox 900000 ma wax ko ko rek mu ne ma rapidement waxal lu koy def wallaahi Lamine Diack mu ngi si nattu nekk France yàlla na ko yàlla teggil nattu bi ma wax ko ko 48 heures après benn 9 heures suba mu oo ne ma foo ne benn dimanche ma ne ko maa ngi kër mu la yónnee sama chauffeur chauffeur am ñëw andi fi 900000 enveloppe bu 900000 ñu jàpp altine le 12 février 2012 booba ñu ngi campagne ñu jënd nag jënd yi si ànd yëpp dem fanaanal ko tefes yàlla dénkaane ba si ëllëg si ñu dem nag yëpp suñuy bagage fii yëpp runga def lu mat vingt personnes lañ àndaloon dégg jóge yof jour boobu ñu ngi tuuru rabu yof mais sama benn xarit ne waa nu ngeen di defar tuuru ma leen maam jege dañ koy yóbbu yara tey waa yof duñ ko gis ñu dem foofu maire Yaraax mu nga foon chef de village baa nga foon chef de village yu yëmbala nga foon autorité Yaraax yëpp nga foon ñu toog si ci tefes gi yóbbu nag bi defar liñ siy def yëpp def li ñuy def yóbbu ko ba si géej gi ba si ndox bi fa lañ ko rendi album bi photo yaa ngi si. kon daal mën nañ ne Yoff moo daaneel Ablaye Wade wala bokk na ci li ko ah, ah, daaneel bokk na si te terewul ñun duñ contre nguur duñ contre nguur ça va. waaw lu tax ngeen am taxawaay boobu. ah. lu tax ngeen am taxawaay bu da ngeen gis ne bu bu toogaatoon du baax. waaw parce que moom am nguur gi walla wala Sénégal tas am na ñoom dañuy yegg si ñaan moom li ma bëgg bu ma ko amul na jaxasoo. te Sénégal nag. du réew lañ tolloon 2012. waaw kay du réew mu ñu jaxase. réew mu yenul yenul àdduna la sene Afrique yenul àdduna Sénégal bu bu si kanamee tuuti. dinañ ko dégg comme ni ñu dégg réew yu mag mag ñi nag duñu ñu seetaan loolu. Mm-hmm. jinne yarab yi du ñu seetaan loolu parce que Sénégal réew mu am avenir la moo tax ñun même lu ñu àndaax àndaax yow boo defee le contraire rek ñun dañu def contraire contraire. kon indiwaat nañu ci yoof ak taxawaay bi mu am ci Sénégal euh, mag ñi euh, ñoo xajal tubaab yi sax ci li ñu wax pour dellu si ci cosaanal yoof ak wàllu suuf tubaab yi ba ñu yegsee mag ñi ñoo leen xajal ñu dëkk euh, Sénégal itam bi mu taxawee ba jaxasoo am yéen. wala maam yi fi nekkoon ngeen wutu leen tey ñoo daan xajale ñuy dëkk tey yoof di dund coowal suuf lu mel nii ban gis-gis nga ci am yow saltige waaw Fatou xanaa gis-gis bu tiis parce que même même même bu ko suñuy maam joxewul woon même buñ ko joxe woon nga bëgg joxe suuf soo xam ne mu nga dëkk mu nga nekk sa gox boobu bu fekkee dëkkuwaay rek ngay joxe les ayants droit mooy ñoo fa dëkk alaa rawati biñ ko bëggee am bien na les les colons ñoo ñu ko jëkkoon jox. te wax nañ ne dañ leen fay fekk seen plantation yi ñu amoon si biir aéroport bi lañ leen fay. Hmm. waaw bu ñu demee jamono di dox di dox ñu yaatal ñëpp joxe suñu suuf bari na ku fi dëkk suñuy maama la daggal dëkkal la ñu dem a dem ba aéroport bi toxu yaa xayta bu ñu demee ba di ko joxe bokk ñu yëkki huit cent e quelques hectares ñu yëkki cent hectares na Yoff am. yokkul Ngor am yokkul Wakaam am yokkul ndakaar yokkul bu ñuy jox keneen ñu bañ a jox parce que ñun ñaanewuñu kenn ku ñu dëkkal parce que loolu suñuy maam ak ñaanoon ne ñaan nañ nit ñi dinañ fekk si te ku fi ñëw yàlla nga am teraanga joo xam ne dootoo dootoo bëgg dellu fa nga jóge ñaan ngoogu yàlla nangu nag mag yi lépp cosaan yi naan nañ ko maam li maamu ñaan nag kon loolu duñ ko iñaane kenn ku fi am kër waaye tamit da yaa xayti am na loo xam ne dafa rafet te président de la république ñu ngi koy fàttali bi muy ut réew mi 2012 foofu la taxawoon ci àll bi wax ne waaye Yoff maa bi mu tourné bay dem maa ngi leen di wax ne bu ngeen ma jàppalee injustice bi am fii dinaa leen ko réparer. lan la tuddee woon injustice. mooy suuf si ñuy bazarder rek boobu ab Wade daa ko jëkk a commencé di bazarder di dagg aéroport bi di ko wàññi di ko joxe waaw ñu dem ñu am yaakaar si loolu. jàppale ko mais le contraire moo commencé di xew Yoff xat na. dëkkuwaay xam nañ famille boo dem am na fukki borom kër ku nekk am na njaboot amoo amuñu kër ku nekk yaa ngi koo kër am na sax li nga li nga fekk suñu kër fi jafe na léegi kër yu bare amatuñu ëtt fu nit ñi féexlu parce que dañu xat te ku njaboot say doom màgg dootoo mën a dëkkaat ñoom waaw bu jëloon cent hectares jox ñu ñu def école def stade ut cimetière suñu cimetière léegi mu fees def yi ñu war a def yëpp yoo nga xam ne day accompagner dëkk bi bu ñu amoon mille mille mille parcelles dinañ mën a désengorger yoof yóbbu leen foofu yoof Yoff nooyi tuuti loolu waxuma sécurité bi muy jox mais moom sax yàlla yàlla yàlla moom sax loolu dëkk si dëkkay dimbali mais vraiment ñu ngi koy métti lu yi ñu si dégg nag ñu ngi si taxaw ñun en tant que coordonnateur ànd taxaw Yoff nekk autorité coutumière si Yoff fii dajale nañ tous les associations et mouvements d'œuvre def nañ tenir nañ deux réunions ñu ngi en tournée sur les villages sur les quartiers chaque jour ñu dem benn quartier wala chaque deux jours defagul nañ dix quartiers te comité de gestion quartier yëpp adhéré nañ ci li ñu def. lan ngeen jublu ci tournée boobu sensibiliser nit ñi dañu sensibiliser nit ñi wax leen ci li xew. parce que lii xew du combat benn nit dama leen wax ne bu tout yoof géppay jox xeex ko. mais buñ ko def combat benn nit buñ ko def benn combat ay imam wala combat ay ay dignitaire wala combat délégué de quartier ñëpp ay ànd na ñëpp uyu si en tant que doomu Yoff imam bi uyu si en tant que doomu Yoff saltige bi uyu uyu si en tant doomu Yoff keneen ak keneen uyu si en tant kon su ma la déggee yéen a ngi waaj benn genre mouvement de protestation. waaw parce que dinañ wax ba ñu dégg ñu wax ne li fi xew neex neexuñu bu ñu paree dinañ bind kii de droit surtout le président daal dinañ ko bind fàttali ko li nga xam ne waxoon na ko waa Yoff te ñun ñu ngi koy xaar si loolu mu mu désengorger Yoff ñu ngi tamit bu bu ñu bindee ba pare dinañ wax ñu dégg ñu mais liñ doon def bu ko mouvement yi porté rek mouvement yi di ay xale doo am crédibilité moo tax ñu tourné si comité de gestion quartier bu ñu tourné ba pare ñoom ñëpp ñi ñu demagul ñëpp jox nañu ñu seen aval imam radd bi jox nañu avalam ne lu ngeen si taxaw xeeb nañ ko imaamu laayeen bi jox nañu avalam ne lu ngeen si taxaw xeeb nañ ko waaw kon bu ñu paree dañuy oo instance yooyu yëpp ñu def jaaru plaidoyer bind depuis aéroport bi mu sosu ak li si Ablaye Wade def ah li ñu si président digoon ah niñ ko bëgg a joxee xañ ko yow fax nga wax wakal loolu bu ñu paree bind ko moom def ampliation bu mu ñëw ba suñu suñu sous-préfet bu ñu paree ñu oo presse bi wax leen ne nag ñu ngi xaar président sa promesse ba mu ñu tenir woon 2012 mu désengorger Yoff désengorger Ngor désengorger Wakam parce que bu ñu joxee suuf si ay dëkkuwaay bu mu jeex bu subaa dinañ bëgg def école wala ay armeel wala nangam nangam duñ ko mën a am. amaguñu brigade gendarmerie amaguñu brigade sapeur pompier te yooyu yëpp ñu ngi koy dox amuñu suuf suñ ko def bu ñu laa jox nit ñi dëkk mais ñu def yooyu ba pare jox waa dëkk bi ñu yokk ba pare ku ñuy jox nda nga dëkk fen ñu man ñu mën la jox loolu ñu ngi si di dox di si. peur de temps dans 15 jours dinañ ñu dégg te dinañ moom tamit dinañ ko bind lettre informé ko ci li xam même waa pays les cadres lébu ñëwoon nañ foofu Yoff pour waxtaan ak waa ak Ngor ak Wakaam yëpp pour ñoom ñu jàpp ci ci ci ci ci ci xeex du xeex nag ci ay teggin lañ ko bëgg a defee ci biir waaye ku ñu ku ñu ku ku ñu jaay doole jël suñu alal dañ la bàyyeex yàlla te buñ la bàyyeex yàlla waa mën naa ñaaw de. d'accord ah, ah. alors ñu ñu dellu démb tuuti euh, lébu yi ñoo fi ne woon euh, naka la ñu def ba xëy na euh, état jot ci suuf si def ko aéroport ñu am ci hangar ba tey ñu koy dagg ngeen di ko métitlu waaw mooy nan laa ko mën a waxee sax mooy kii bi Senghor defoon kii xaw domaine national waaw moom la Senghor defoon si lu bari heureusement sax magi lébu yi duñ cuune hmm. gis nga ñoom dañu muus parce que Sénégal bu njëkkoon ñeenti capital yi amoon Saint-Louis Rufisque dakaar ak Gorée ñooñu sax tubaab yi bu ñu daan liggéeyloo ñooñu lañu daan jël leen liggéeyloo. parce que ah, ñoom lañ considéré woon dañu amoon xel. parce que ñoom ñëpp booy xool ci booru géej gi lañ dëkk. ci booru ndox lañ dëkk dañu muusoon dañu woon ay ay niti àll. duñu niti kaw kaw niti nitu capital lañ. moo tax ñu bari dañu daan jël suñu ñoom papa man sama papa def na traitement Diourbel def na ko siin Diakhar. loolu bi mu amee heureusement mag ñi bi ñu amoon nañ seen i seen i terrain utaloon nañ ko ay certificat administratif fi mu ne bari na suuf su nit ñi dëkk fii diggante yoof jëm Kayar bari na loo xam ne bu yoof àndoon ut un pôle d'avocat ñu jël ko dénk leen ko bari na suuf suñu ñu tabax batiment wala cité buñ ko attaqué juridiquement dañuy de dañuy dañuy dédommage. ndax yéen a ay kayit. ñu ngee kayit yi bari na fii diggante daanaka ba kañak kañak moo ne sa booru Kayar. yëpp suñuy maam ak ay géejawaay yooyu yàggul Pikine yàggul yoo fax Kaayaar benn dëkk dañ daan dem waa Kaayaar di ñëw fii di fi ne waaye Yoof di dem foofu am na sax dëkk boo xam ne Yoof la tudd si Kaayaar presque yëpp suñu moomeel la diggante ak Yoof ba ba ba Kaayaar waaw mais loolu taxawaay rek mooy tax ñu jot ko ak ànd noo ne dañu diviser wu loolu nag feebar la suñu mooy la communauté waxatuñu benn wax y a cinq saltige y a y a dix vingt ndey ji réew deux sëriñ Dakar même mais bu deux deux sëriñ Dakar amee sax mais li ki légitime mooy mooy mooy Ablaye Matar si moo légitime fii tamit boo ñëwee am na saltige yu fi ne yoo xam ne même boo bokkee si xeet bi légitime parce que boo takkee ndomba gi yow mënoo indil sax yoof benn benn njariñ te dayoo ñu la loolu ab saltige dayoo ñu ko muy dugg si xàmba yi rek di tuuru di ay béyeexi nag da nga war a boo defee loolu ba nga sol sa dàll jéggi autoroute uti njariñ utal nit ñi liggéey bu yox amee jafe-jafe nga taxaw si loolu lañu xaar si yow mais du question da ngay dugg si xàmba rek di sol loxo nga ak sol ay pétaaw loolu loolu pàcc la si mais loolu li liy firnde ne la yaa yenu yaa yenu cër boobu mooy mooy njariñ li ngay jële si biti di ko dugal yof waaw ah, moo tax bari nañu fi falu ni mënuñoo andil yoof benn benn benn benn benn mille francs boo xam ne di nga di nga yëg ne ñii andil nañ yoof mille francs lu jariñ dëkk bi voilà Euh, tey organisation wu yoof naka la demee ndax euh, dëkk bi doonte du lébu yi rek ñoo fi nekk mais njort nañ ne am na quand benn organisation am na tey kuréel gu fi nekk waxtaan wi ñu mujjee def euh, ci émission ànd aar aaru di nuyu au passage waa EMAD Abdou Khadre Gaye yaa ngi doon wax kuréel goo xam ni moo yor koppari koppari yoof ñu njort ci nekkoon am na benn organisation ba tey boo xam ni sax na fi et que être mooy permettre dëkk bi muy dox ak di saafara yenn jafe dañu mos a yeewu comme ñoom jànguñu woon njàngu tubaab ñu créé woon benn association bu ñuy wax APEXI bi nga xamee ne bëggoon nañu yemaale Yoff fii ci Ecobank bi Société Générale dañ ne woon Yoff du yokk su ma ñoom papa yi def ci combat wax ka Abdou Diouf 83 bi mu ñëwee fii pharmacie Maam Ndiagane 83 booba yàgg na di def ci campagne Yoff su ma papa jóg nekk ah monsieur le président yow de la ñuy jàppale. waaye yoof mënatu la yokk nii parce que géej gaa ngi fi mënatu ñoo yokk nii parce que aéroport baa ngi fi nii rek lañ mën a ñu ngi lay ñaan ne yoof moom na ngeen ko may mu yokk loolu moo waral extension APEXI ñu jël fa ay milliers d'hectares état bi jox ñu ko am famille yu fa amoon ñu dugal seen moomeel si moomeelu yoof bi ñu paree yoof dédommagé leen mooy e, am na APEXI 1 am na APEXI 2S am na APEXI 2OS am na écologie am na APEXI APEXI APEXI kon loolu ñu ñu ñu ñu ñu ñu organisation ba APEX yi ne fi moo doon def moo amoon beneen kuréel bu ñuy wax classe de vie kooku moo doon joxe suuf si dafa amoon haute dignitaires yi am imam yi am association ku ne da si amoon représentant ñooñu ñoo doon def attribution terre doon dele waa Yoof ñëpp amuñu waaw ñooñu am na ay biens yu ñu defoon si booru autoroute bi mooy banque bi société général bi Kono 24 Kono ñu jéggi tàññaa station Shell bi ba Senelec bi ba SDE loolu nag di indi ay revenu loolu nag APEX di organiser wu di si dimbali nit ñi socialement ñu tabaxaat beneen immeuble fii mooy immeuble Cheikh Tidiane nag ñu ngi defaat beneen immeuble pour bañ a mën a yokk rek ala lu yof donte la sax yëpp moomeelu yof la communauté bi yëpp moomeelu yof donte la sax heure bi waroon na fekk bu ñu deeloon organiser wu heure bi daan waroon nañu am un milliard par parce que extension bi bari na lu ñu fa joxe yoo xam ne ay terrain yu mag la ek angle bu ñu ko réservé woon heure bi yoo mën na dugal cent un milliard par an si keesam mais terewul ñoom ñu ngi góor góorgóorlu ñu ngi yokkaat seen kii patrimoine pour que ek capital bi gën a bari loolu mu ngi fi am na conseil des notable mais li ma la wax rek lébu gi dafa sooxe léegi dafa bari ay pàcc pàcc ku mel rek ut sa pàcc conseil des notables moo fi newoon bi suñu ñoom papa nekk mu nekk organisation bu dëgër boo xam ne jaraaf yi dañ ci daan ne saltige yi ne si ndey yi ne si imam ratib bi ne si représentant xalif des la ne si APEX si président bokk si ñooñu ñoo doon wax ak frais yi ak jàmbure ak magi Yoff xam nga kuréel yooyu ñoo ne Yoff ñoo daan daje di waxtaan si mbiru yoof li leen metti li ñu war dox li ñu war a lijjanti ak li ñu war a faj ñooñu bu ñu buñ ko validé wàccee ko seen instance ku nekk dem sa instance wa booba yow neexoon benn kàddu la woon mais léegi dafa am ay kàddu yu kàddu même booy bind di réclamer dara da ngay am jafe-jafe parce que bu ma bindee dëkk Yoff nekk saltige beneen jaraaf bind nekk Yoff ne beneen président frais bind ay nekk Yoff keneen bind boo demee si autorité yi mais doo xam kan ngay tontu. waaw jafe-jafe boobu la lébu gi dund. te maa ngi yuuxu cri cri du cœur wax ne vraiment il ñu ñu ñu ñu dajawaat ut benn baat rek parce que ku ne li nga moomal sa bopp yaa ko moom mais li dëkk bi moom mën nañ see mën a jiboo wax si ba xool lan ñu si jariñ ñu ànd def ko ah. léegi APEX euh, kees googu nga xam ne mi ngi koy yor euh, lan mooy nekk njariñam kañ la ñu koy euh, jëfandikoo ak naka annuellement parce que ñoom chaque année dañu def dañu budgétiser lii dañ koy def si social li ñu def ko si éducation li ñu def ko si diine ji li ñu def ko noonu daal lañ koy tasaare am am ay ay ay événement yu am biir comme turu maam jëre comme nangam comme bu may dem sama journée de prière ku si ne chante chante Cheikh Mansour appelu maam li maam dañuy budgétiser d'accord bu ne def bu ne lañ say def comme ren am nañ cent cent cinquante million appel bi bu ñëwee nañ si def nangam turu maam di nañ ci def nangam éducation dinañ ci def nangam ñiy def so ñiy demande sociale nañ si def nangam bu tam xarit ju jotee dinañ jox penc bu ne nangam noonu lañ koy budgétiser ba mu jeex waaw xam naa dinañ am lu ñu dese mais noonu lañ ko organiser vraiment Yoff événement bu fi am seen loxo ku fi décider tamit di kilifa ñu dem yóbbu fa seen dimbal tam xarit ñu jëndal jàkka yëpp penc yëpp nag ñu dolli si li ñu am dimbali ñii nga xam ne mënuñu jënd la bu appel bi ñëwee ñu am enveloppe bu duun dem si famille maam li ba kilifa yëpp ku nekk ñu jàppale bu Cheikh Mansour def cantam ñu jël enveloppe yóbbu fa noonu daal lañ koy defee bu turu maam dara jotee tamit noonu bu julli it jotee même xaru imaam bi ñoom ñoo ko doon jënd waa yooyu nañ ko organiser doon la sax man na gën a ëpp loolu mais noonu lañ ko organiser moo daal ku nekk ngi si yëg sa des fois nit am problème mu faju doo am ordinance am wala war a def analyse da nga leen di bind ba après ñoom bu ñu dajee di may la. waaw ah, noonu daal lañ organisé doon lu moom waaw waaw kon donte tasaaroo am na ñàkk ànd gu fës waaye teewul am na organisation boo xam ne des na fi dëgër mën di faj yenn léegi mairie Yoff lanay taxawaayam par rapport ak communauté bi taxawaay bi day li ma la wax ñun dañ ko jàppale sama xarit la maa ngay nuyu la ministre bi Abdoulaye Diouf dafay ñëw fii bu amee jafe-jafe tout le temps dina ñëw guddi di ma seet dina ñëw bëccëg di ma seet te li mu ñëw guddi moo ëpp te maax moom yàlla la waaye taxaw na de waaye lu mu li mu taxaw des na des na parce que moom moo mooy moom lañ jàppale mu jóge fii dem dem dem bokk fa la ñuy décider Sénégal ba ma jàpp ne suuf suufu aéroport bi buñ ko buñ ko naree def ni jar na sax mu démissionné ankay wax da buñ jëlee tout buñ naree jël yëpp donte la mu ngi jéema kenn nit ku ne danga def lu baax def lu bon sunu xarit la mais man moom dama commencé di di di di di wocceeku si mbiram. ndax que taxawaay bi dafa des parce que communauté lébu du du communauté bu naqaree bu neex a yilif la mais bu naqaree jiite la parce que lu tax lébu yëg-yëg rek la am du xaalis boo koy jox du du du privilège boo koy man mi proposé woon na ma jox ma 4-4. andiwul ma indemnité ma refusé refusé wax dëgg yàlla proposé woon na ma premier adjoint au maire la fi yebal minuit mu ñëw fii sama chambre à coucher maa moom wax yàlla mu ne dafa la bëgg jox liy jox la lii jox la lii ma ne ko nekk baax na na xam na xam lan laay peser rek si yow ak communauté lépp bu ko xamee rek dinañ mën a ànd te moom dafa ñëw fi ne ma dama bëgg sa papa ni mu ni mu defoon Mamadou Diop nga def ma noonu sa papa moo taxoon Mamadou Diop kenn sañu kalaat moo ko jàppale moo ko dimbali ba mu yegg fi mu yegg moom sa papa gaañu na sa Mamadou Diop sama nijaay la gaañu na yow dama bëgg ñu mel noonu ñoo bokk génération may politique nga yenu coutume ñooy ay jeunes bëggatuma ñu réeru mais après da ngay yëg ne daal daf ko doon wax noonu rek pour la forme moo téye wax bi moom téye ko. kon daal da gis ne euh, moom fu laalul communauté bi li ñuy def yëpp jaarul yoon même kay seetaan jéemu ca dara. déedéet dama ne la ku def lu jaagul yoon te def nga lu jaagoon mu ngi jéem si école. si dëkk bi jéem na dugal na fi lu bare waaye des na mën na def plus wala sino man école am bi mu jànge école 1 Talla Diagne man falaa jàngi moom fala la mais école ba boo fa demoon tey def fa reportage école bi école bi yëpp ardoise yi loolu est-ce que est-ce que est-ce rafet na si moom école boo xam ne fa la ministre bu génn tey jii bu ñu fa demoon nga xool di ngay di nga di nga posé la est-ce ministre bi fi la génn ardoise yi daanu ngelaw li naawal ko ndox mi wàcc ndoxu taw ba classe yëpp bàtte te ñu ngi à ah, moins d'un mois pour école tijji te defaguñ sa dara. léegi problème hangar bi suuf si ñuy dagg moom Abdoulaye Diouf Sarr concrètement euh, ndax wax ngeen ceeg moom ak ban taxawaay la si am. wax nañ ceeg moom parce que moom moo ñu waxoon ku ko ku ku ko soxla ne yem si premier adjoint. ñun ay kilifa lañ du ñu sànni suñu wax si mbedd bii loolu ñu ko déggee premier adjoint bi recevoir ñu wax ma ne ko booy wax ji bari na te nee nañ jox nañ leen quota yéen a koy jaay. ñoom waa waaw mu ne ma demewul noonu lotissement bi de bi mu amee génne nañ nangam génne nañ nangam pour yof génne nañ nangam waaye usage d' habitation parce que morcellement bu ñu def 70 pour cent usage d' la. mu ne ma wàllu dëkkuwaay parcelles yi ñu yi ñu génne lañ xamagul luñ see am bind nañ ministre bi nag pour xam lan lañ ci am waaye loolu ñun ñun duñu doy dañu jël suñu avant-garde. parce que Abdou Karim Fofana moo nekk ci ci ginnaaw loolu. waaw ah, moom Karim Fofana dinaa fekk valider loti moom ministre la buñ ko demandé lotissement bu mu jaaree fi mu war a jaaree en tant que daf koy valider naa fekk valider mais après séddoo bu mooy metti xam nga des fois. parcelles yooyu niñ koy joxee mooy Fatou Thiam dafay dafay nekk ministre wala jegeñ jegeñ ngóor gi wala jegeñ autorité yi. am ca benn du noo du sa yem sax. am na ñoom dañ sa am benn dugal seen doom dugal seen jànq dugal seen jabar. comme ça nga am cinq parcelles. boo paree yooyu yëpp nga sàkkal ko pexe tabax ñaari daan te am na ñoo xam ne ñu ngi fi amuñu luñ dëkk. loolu loolu ku ko sa ngor may sax sa diine war ku ko sa kii sax sa la ko may war nga ko bañ loolu deret deret deret waru ko nangu. mooy nga am fukki dëkkuwaay nga xool nit ni xam ne ni mu dëkke baaxul loolu baaxul loolu ak xale yi indi mooy ñii mooy ñii nga dem ñi grand théâtre rek di sànni xaalis bari na ku toog di ko seetaan mu ngay ñaxtu si xol bi parce que peu am na ku toog ko seetaan koo xam ne añul jour boobu wala mm. nga gis nit di génn xaalis di ko sànni kooku kooku xol bi du neex loolu la noonu la gars yi bëgg a def suuf si am na ñoo xam ne lotissement bu am ñu am si ñaari parcelle fu ñu ko jëmee da ngay bu ëllëgee da ngay dee rek te wóoru la ne li nga fiy bàyyi dina dina ñi ngi koy bàyyil dinañ la si sax jàngal kaabilu alxuraan moo tax loolu jar bàyyi xel àq baaxul te lii àq lay jur mooy nga am fukki parcelle jaay jënd def lépp ut lépp am ku dëkk fi waroon am fu dëkkuwaay amul lu mu dëkk muy ñaxtu ba xëy loolu génn àdduna ay doom ne si jafe-jafe te pourtant mën na ñàkk bu doon cent mën nañ fexe mu wàññi ko à cinquante pour cent te loolu jafewu leen loolu autorité bu baax rek kay xalaat loolu mais autorité du nekk autorité boo xam ne lu ñëw rek nga def ko sa sa yëfu bopp wala bu dee bu dee cent nga jël trente yi joxe soixante dix yi nga teg sa tànk loolu kilifa du ko def te maire bi daal ñu ngi leen di interpeller ne ñu vigilant vigilant bàyyi xel yoofu parce que bu ëllëgee bu campagne jotee da ngeen di wàcc si nit ñi ñii ngeen di xañ teraanga ñooñu ñoo leen di jàppale pour ngeen am ndombu tànk kon maa ngi leen di interpeller ñu bàyyi xel yoof xam ne yoof du dëkk bu ñuy bu ñu bu ñu bu ñu toog ci kawam man ngaa toog ci kawam ab diir mais bu fuddoo boo maytul gannaaw géej ngay dale te loolu ankay ah, du dëkk moom mag ñi dañu wax ne ku ku ko xam da nga ci jéem lu baax la bu ci jéem leen Ah. alors euh, ñu delluwaat tuuti ci ginnaaw sànq bi nga waxee ni Yoff di fonctionner ak APEX yi ak organisation bi nga xam ne euh, donte ànd euh, ñëpp amul waaye ba tey des na fi daf ma delloo ci démb ni lébu yi daan doxee vis-à-vis de la République sénégalaise maanaam ñoom dañu meloon ni ñu am seen république bopp parallèlement ak république bi nga xam ne président moo ko jiite ak ministre am euh, organisation boobu dafa mel ne moo fi des ba tey ndax tey APEXI ak ni ngeen di doxee parallèlement ak mairie bu yoof wax nga sànq ni ngeen di doxee ak li ngeen di régler comme euh, problème euh, sociaux te dégguma ci benn yoon mairie Yoff looloo indi ma ni la luy taxawaayu mairie bi vis à la communauté euh, ndax la fi la woon démb ba tey moo fi ne ci wàllu fonctionnement maanaam xaaru leen dara ci mairie xaaru leen dara ci état Yoff wala communauté Lebu gi daal mi ngi dox comme mu daan doxee. xaar nañ dara si ñoom sax des fois duñ la ko parce que amul kenn ku mën a demal sa bopp état moo yore doole moo yore kantan moo yore moyen loo def def def def état daf la war a jàppale école y a neuf yoo xam ne ay école kii la primaire yëpp yoo fa joxe suuf si école boo si dem di nga fa fekk ay classe classe yoo xam ne yoo communauté bi ñoo ko tabax état bi doog leen si fekk wala ville de Dakar yëpp ah seul le nouveau lycée bi nekk Océan boobu laa xam ne état bi moo ko dox du yow mais boolu loolu lycée bi la lycée ak collège bi baax neuf écoles yëpp boo fa demee dinga nga fekki bâtiment yi bâtiment communauté bi ñoo cotisé tabaxal ko seen bopp waaye communauté bi mënul defal lépp parce que ñoom dañuy def seen budget li ñu def ko si éducation ñu def ko si nang comme li ñuy defee suñu budget waaye la sa yoo foog am nañ ko ko jox rek parce que nit mënatul defal boppam lépp da ngay def une partie li des donte la libu moom boo ko defalee mu jël boo ko defalul tamit mu jiim waaw dina jéem ba fukk ak kàntanam may mu yar yoof tamit man mi ngay gis du ma meer du ma meer mais bu boo yenn woon ax man des fois sama doom dafa may doon naa yow xanaa yaay meerab dëkk bi da nga man ko am problème rek ñëw fi damay lijjan di jàngu xale yi maa ngi à 800 bourses yu ma jox xale yi depuis depuis quatre ans maa sama ànd mouvement presque boo ko xayma bourse bu ne un million trois cent cinquante da ngay jàng ba am licence boo ko xayma yegg na un milliard deux cent démb ba ñu ngi daje woon ndax benn école fi mu dañu jox soixante dix bourses pour les pour les pour les pour les bacheliers de Yoff. dama am partenariat léegi écoles yi sax ñoo may ñoo may topp am naa cinq écoles yu ma jox bourse ba ma fa amoon deux cent élèves dañ koy jël te man dama leen wax ne du ma jël demi bourse du ma jël un quart de bourse bourse entière sama communauté dama leen bëgg a jàppale kon bëgguma sama benn doom di jàng di fay vingt cinq mille ñu may ko vingt cinq bu ëllëgee papaam du am wala yaayam ñu di ko dàq waaw yooyu yëpp ñu ngay dox dañuy dox social bu ñu toogee fii bu école tijjee am na ñoo xam ne ñooy fay seen inscription même lycée bi ma nekk le président des parents d'élèves am na ñu seen papa amul bu ñu leen naree daax maay proviseur bàyyil jox papaam te duma si feeñ damay jox papa ji mu dem inscrire ay xale yi xale ñenn ñi ma jënd fourniture teg fii ku ñëw sa papa amoon ma jënd ñaari kay ñetti big jox la noonu la ñu fonctionné. d'accord ay ambition politique nga am wala sasu saltige bi moo lay def loo loolu. non ñun politique mënuñu si génn suñu loxo. xam nga sama papa El Hadj Baye Dembe te jàppale Senghor jàppale Abdou Diouf de woon président de notables quatrième coordination muy Wakaam ba ak Bel Air mooy woon président notable am comité fii quartier di di yëngatu si politique autorité coutumière kenn mënu ko génne. da ngay am mbokk moo xam ne day politique mu mm. mu yow nga jàppale ka en tant que coutumier jàppale ko dooleel ko mais boo demee ba en tant que coutumier gisatoo loo xam yow tamit da nga seeti keneen beneen doomu Yoff wala bu jotee man bu jotee ma porte liste. kon tey saltige mbay nga mën nañu xam ku mu àndal. actuellement ni ku mu àndal comme nan. ci politique kan ngay jàppale. noo xam nga ñun coutumier lañ. te dañu ànd ak grand sëriñ. président de la république la ñuy soutenir. mais élection gox moom du affaire wu njiitu réew. Hmm. affaire ñi nga xam ne ñoo am yéene seen seen commune ñoo war a ànd pour jël commune boobu parce que bu nga defee affaire politique parce que yëg nga ne bu politique jotee communes yi ñëw ñoom dañuy muus politiciens yi ñu jël ay personnes ressources jël na yeen saltige di am na mbooloo nañ ko dugal diwu am na mbooloo nañ ko dugal ñu mat une quinze quinzaine wala vingtaine ni def ñu nekk ñoom politiciens boo demee ba ñu gañe ba séddoo jot ñu liquider <laughs> non noonu lay dem ça se passe comme ça ñoom ñoo lay majoritaire boo fa nekkee di kaas ñu voté sa kàddu day daanu toujours da ngay obligé dem toog yooyu nag lay population yi yeewu léegi population yeewu nañ ci léegi léegi moom amatul topp kenn. gannaaw la woon woon ni na est-ce que kon yow da nga nar nekk candidat ci élection locale yi. dàquma si dara soxna si bu ñu demee ba si kanam dàquma si dara bu man porté wul dinaa dugg si liste pour dooleel ko te du du du du question dama bëgg a nekk maire mais da dooleel koo xam ne. yëg naa ne bu nekkee maire su ma nekk mbedd mi salte na wala école bi ardoise yi dafa daal nañ ko dale mu def ko. kon da nga jàppale woon Abdoulaye Diouf Sarr te loola gisoo ko ci. non jéem na si sax waaye des na parce que école yu Yoff heure bi waroon na fekk ñu dépassé lool man école bu amee ardoise Dakar da ko war a dépassé te bu ñu demee suñu école yi yu bare ay ardoise bu ngir naw nawet bi ñëwee dafay naaw. kon daal page am da nga nar a tourné. da nga a tourné ah, tout cas. fi mu ne moom <laughs> waaw waaw fi mu ne moom wax dëgg yàlla moom jàppalewu ma ko actuellement nii hmm. sama premier addu nag sama xarit la ñoo jàngandoo sama problème on dit du tout su ma amee yenn si sax damay dem ñu discuter si bu ma waree jàppale jàppale moom en tant que xarit mais daal seen taxawaay nañ ko defaat Yoff dafa salte masul woon salte mais ñu bàyyi dégg yaa ngi gis ñu ngi commencé di def parce que élection mu ngi pare ñëw bàyyi ay mécanicien boobu géej ku xam plage xam plage ay mécanicien duñ fa te li si gën a metti mooy ña fa ne di liggéey ñu bari dëkkuñu Yoff dañuy xëy gaara fi seen super yi seen oto yu yàqu yi liggéey ba ngoon jël seen xaalis dem bàyyi Yoff mu salte amul dara loo xam ne dëkk bi dina ci gis boppam. daan kay baaxul pollution d'accord euh, kon euh, ñu ngi jëm ci ay élections yoo xam ne yu nara doy waax la lan la Yoff di xaar ci maire bi nga xam ne euh, moom moo fi nara génn wala da ngeen bëgg mu nekk doomu dëkk bi man day je souhaite ñu am maire boo xam ne du ministre waaw maire boo xam ne ku ku ku ku ku ku mën a partager la te maire maire li koy dimbali mooy moo am équipe xam nga boo amee conseil yoo xam ne fi bari na yoo am na ñu retraité ñoo xam ne ay comité l'état ay kilifa la woon nañ ci Sénégal ñooñu ñëpp ñu ngi toog te màggetuñu. loolu amul ci municipalité bi fi nekk. déedéet. ñan ñoo fi nekk kon. waaw dama ne politiciens ñoom ñooy ànd rek. oo quelque bonne volonté dugal leen si biir bu paree après ñu liquider leen mais loolu xale yi ñu ngi organiser wu jàpp naa ne daal dinañ am liste boo xam ne du nekk liste politicien mooy mouvement yi bari nañ fi association yi bari nañ fi association des imams ñëpp a ngi fi bu ñu dak dépôt def un bon liste xam ne pêcheurs yi crédible ñooy ñooy représenté pêcheurs sport y a y a y a y a le regroupement des anciens footballeurs ki am dafa génération yëpp ñoo ñu am si wàllu esport bu dee coutumier ñu am ñaari coutumier bu dee nangam nangam ñu dajale yoof dans sa géné ci ñëpp dajale ñëpp def liste bu baax boo xam ne maire bi dootul am sañ-sañ moom rek mu am kàddoom di def waaw lu ñu laa def rek ñu waxtaane ko bu dee santé bu dee pêche bu dee social bu dee yëpp ñu def ko rek mais man daal souhaité wu ma moom daal li ma souhaité yàlla nañu am maire boo xam ne maire buy concentré wu si si parce que léegi état baa leen commencé jox ay pouvoir waaw mu concentré wu si commune am ay am na ñoo xam du ñu ministre ñoom Barthélémy Dias du ñu ministre mais seen waa commune nag leen di way ñu ngi def lu ne seen commune Gorgui Ciss du du du du ministre professeur la université le maire de Lébu moom it mu ngi mu ngi mu ngi waa boo demee yéen amu amu fa concurrent mais loolu du lu leer mooy tax nga am ko te 2002 ba léegi mooy maire ba te bu ñu voté waatee mu jël maire loolu liggéey kay maye. liggéey mooy gis seen bopp. waaw liggéey kay may bu fekkee yow danga nekk kilifa nekk maire te bu élection ñëwee nga sonn kon waa ngaa seet sa bopp Fatou sa deuxième mandat sa premier mandat moo koy définir am na loo xam ne ku ko def bu jotaatee du ma wër wër bu sonn waaw an bu ñu la joxee cër man mii ngay gis ni dama la wax ne bii passé bi ñu ba bi xoolee saltige 2011 dama sonn lu ne daj naa ko pour nit ñi uy sama lu ne dañ naa ko may def lu baax sax si lu baax lu yoof am nga bàyyi kaax moom boo amee tanga nga bokk ka ñi dañuy dem ba ay la yaa fi ne kon dañ leen di fal euh, euh, ay élection la saltige bi coutume déedéet nee na ma mag bu ne saltige ñu def pexe fal ko saltige mais après li si xew yëpp kenn mënu ko wax dafa basculer si kawam tegawul suma mag la fu ñu dajee ma démb bii man maa andi bourse yi moo invité ko mu ñëw bi wax jotee sama taaw yaay la ma jox ko mu wax du ma wàññi dara man maa indi bourse yi maa fi dugal des des centaines de bourses maa fi def nangam maa fi def nangam bu wax jotee en tant que mag ma jox ko mu wax waaye waaye yow xam nañ ne tey ji ba ma tegoon kees di voté bi chef de village yu Yoff bu ñu bu bu ñu defee yoon da ku ma voteel dama lay daaneel parce que ah, ah. léegi ñu euh, ñëw ci yoof ak nam daan doxee ba tey mës na ma waxtaan ak kenn ku jiite fii ab kuréel mu ne ma yoof dafa tàmbalee yàqu ci wàllu jikko yi ndax dañ ñoo wàll si waaye tey xale yi ñu ngi leen di euh, dugal ci ay mbir yoo xam ne bokkul ak li mag ñi bëggoon ci yoof euh, surtout itam euh, njabootu maam Seydina Limam nga xam ne ñoom ñoo fi nekk tey toogal fi mag ñu baax ñooñu yàlla na yàlla doole wàcce yërmande ak xéewal ci ñoom alors est-ce que tey am na kuréel goo xam ne mooy toppatoo wàllu jikko yi wàllu doxin gii di orienté nit ñi pour sauvegarder valeurs yi nga xam ne mag ñi jiwoon nañ ko fi am na mais de façon dispersée. mooy li ma wax gis nga ànd gi daal mooy nekk problème toujours moo nekk problème amul dara lu ñu te tey jii bu ñu àndoon rek wax benn wax rek lu ñu bëgg faj mën nañ ko faj mais loolu jafe-jafe la donte la sax am na ay mouvement association lycée bi xam nga lycée le lycée provisoire ay association mouvement ñoo jógoon bu ñu wax ànd defar yow xeex ko parce que dañu jaayoon terrain bi ñu xeex ko ba delloo ko tabax fa lycée yooyu mouvement yooyu ñu ngi fi temple bi amoon fi ay mouvement ñoo jógoon ànd ak waa dëkk bi ñu xeex ko loolu mooy doole yi doole Yoff mais léegi c'est un peu dispersé mais terewul am na kuréel bu ñu ni ñu ngi koy dox di ko ràbb buñ ko àndee mouvement yi on a délé chef de kii président comité de gestion quartier ànd ak imam bi bu yàggee ñooñu loolu force lay doon parce que xale yi dañu am kàttan. waaw ànd defar Yoff. Ah, ah, waaw ànd waaw ànd taxaw Yoff. ànd ànd defar Yoff mais dafa am ñu bari ñu ci affilié am na réveil. am na ancien footballeur ñu bari am na vision 129 am na ñu as ñëpp si adhère li ñuy def ni loolu bu paree nag du affaire suuf rek wax nañ ne du nekk affaire suuf après dinañ organiser wu yëpp yi nga xam ne war nañ ko xeex si biir yëf ñu ànd di ko xeex si ay teggin parce que dëgg nag yàllaa ko moom tournée yi bu ma demee loolu laa ma leen waaw benn wax mënul am benn dëgg mënul am fukki wax ñu ne wax nga dëgg di benn dëgg mënul am benn dëgg moo am mm-hmm. benn fen moo mais benn problème da si siy dégg fukki wax mooy affaire engrais pèlerin bi nga fukki wax nga siy dégg. doo xamante yow nan nan ngay def lii lii dal sa xel mooy yow nga xool sa yoonu bopp seetlu fan ngay amee information bu fi parce que yim la wax yëpp mënoo si téye benn information ne wér yeneen par exemple ngeen ci dégg. déet xam nga tey dañ ne laan commune bi kii nañ jox nañ leen quarante parcelles ñu ngi koy jaay. Hmm. suba ñu ne nii ginnaaw suba ñu ne. dëkk bi yokkaat nañ ci sept hectares xam nga da si siy dégg version yu bare bu subaa ñu ne noo saltige mu ngay wër nangam nang lu ne nga siy dégg te man dama leen wax ne lu ma wax si biiram ne sañ naa génn waxaat ko si penc bi man li may wax nëbbuma si yéen ñoom xam nañ maire bi xam nañ ne maa ngi tuum xam nañ ko ñu ngi may oo di ma interpellé man leen lu ma wax sa penc ma rek nañ leen ko nettali bu ngeen ñëwee ma waxaat leen xam nañ ne maa ngi tourné ay mouvement waaw maytul ma ne di dañ siy dox lu ñu si lu ñu si yàlla may ñu jël parce que xaaruñu si dara xaaruñu si benn mètre carré xaaruñu si parcelle xaaruñu si fu ñu dëkk pour suñu njaboot yaakaar naa lii ma def si Yoff comme la sama papa waxoon am cinquante ans ne bàyyi na napp raxas teer géej jox gaalam ginnaaw ñibbise ne bàyyi na napp maa ngi toog fii sama kër xam ndax li ma liggéeyal yàlla dama ko fay wala de waaye bi mu toogee 55 ans ba 86 ba 86 ans yàlla defal na ko teraanga ju ne noonu la di nga toll foo xam ne da ngay bàyyi sa bopp yàlla doo doo xeexal yow ba mu am di pour cent nga nga bëgg taxaw ne yow yaa ko doon xeex tu es un en trois bu ñu ko tegoon di ko séddoo muy 200 pour cent du ma si am parcelle parce que xam naa ne bu ma nëree jël dinaa gis koo xam ne moom moo ma si gën a waaw donte la amaguma kër gu ma dëkk te jàpp naa ne balaa yàgg dinaa am kër parce que maa ngi jéem lu baax samay mbokk maa ngi liggéey maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi def pexe maa ngi daal bàyyi tooguma ne yàcc waaw kon loolu tamit ñu bàyyi ko xel waaw jërëjëf saltige Mamadou Mbengue bu Yoff moom la ñu doon dalal ci démb ak tey waxtaanee cosaanal dëkk bi surtout wàllu suuf ni fi mag ñi dëkkee woon ba xajal ñeneen ba tey ñu tàmbali fee xat ñoom hangar aéroport bi euh, moo doonoon euh, li lay taayal waxtaan wi ndax dañu ko dagg euh, ba ko def ay parcelles te ñoom ñu jàpp ne Yoff a ci gën a yay ku mu mën a doon ndax Yoff xat na ñu fi dëkk itam am nañu jafe-jafe dëkkuwaay loola doonoon solo si waxtaan wi saltige ñu lay gërëm bu baax amoon mbégte ànd ak yow ci waxtaan wi dalal la ci démb tey Abdou Khadre mi nga xam ne xamante bi ci moom la jaare bu EMAD bàyyi la nga tàggoo rek ci lu gàtt. merci xanaa ma nuyuwaat sama xarit Abdou Khadre moom mi nga xam ne comme ni nga ko waxee xamee bi si moom la jaare ñaanal ko EMAD gi mu jiite yàlla defal ko si nam xanaa ñaanal rajo bi soxna ñaanal la soxna Fatou yow it yal la yàlla jàppale ba li ngay ut si sa mbécc mi yàlla defal la si lu kawe sa ñor ñaanal seen rajo bi yàlla gën ko yaatal la ngeen sa bëgg yëpp si teraanga ak yokkute yàlla defal leen ko ñaan Sénégal yàlla na fi def jàmm di interpeller waat le chef de l'État di ko wax ne waa yoof ak ak lébu yi nee nañ nga bàyyi leen xel waaw wax bu wax bu gàtt la waaye wax bu ëmb lu bari la nañu bàyyi xel rek bu ñu bàyyi xel rek ñu bàyyi ko xel